jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou ñu ngi santati Serigne Saliou mbake bu baax ci màggal bi am sell di amati mbégte ci teewaat gi ñu teew fii euh, fii ci att bi nga xamante ni attu Serigne Saliou la ànd koog sunu Serigne sunu jëwriñ euh, Serigne Ousseynou Kane borom xale mi gi moom Serigne Saliou Mbacke euh, weer wi nag di weer wu tedd di weer wu sell di weeru koor nga xam ne weeru ngëneel la weeru màgg barke. xam ne weer wi ci la alxuraan wàcc nga xam ne guddi gi tey di guddi gu mag di guddi gu rëy di guddi laylatu xadar nga xam ne soo ah, jàngee alxuraan inaa ansalnaahu fii laylatul ah, guddi gi tey guddi gi moo gën junne ay weer ah, bi nekk fii ci Yoff Jàmmalaay ànd ak yëpp di dundal guddi gi di ko màggal ci xasida ak alxuraan sëriñ Ousseynou Kane borom xalima gi eh, ànd koog waa daayira Riyaadu Saalixiin waa daayira Kansul Muhtadin ñoo doon jàng léegi ànd koog waa daayira Soxna Faat Jaxate bu Grand Médine ànd koog waa daayira Soxna Faat Jaxate bu Pikine ànd koog eh, waa daayira Xidmatul Xadim eh, wax dëgg yàlla gis ngeen tante bi at mu nekk nii lay demee sëriñ bi ànd ak taalibe yi ak mbokk yi ak xarit ak wëllër di ko dundal fii eh, fii ci eh, jàmbalaay eh, ñuy ñaanal sëriñ bi sunu borom yàggal ko fi ndax ab taxawaayam ab liggéeyam ci ëttu sëriñ Saliou rafet na lool ndax fa sëriñ Saliou Mbacke tegoon tànkam fa sëriñ bi teg tànkam de di liggéeyal jëwriñam di sëriñ Saliou Mbacke kon nag ñu ngi ñaan sunu borom yàll na ko fi yàggal te ba ànd ak ak wér ak wérle guddi gaa ngi nii di guddi laylatul qadr ah gis ngeen tànt bi. gis ngeen euh, alxuraan ñu ngi jàng alxuraan ak xasida yi euh, nee na fas yéene dundal euh, guddi gi ba ba set. Mustafa Sidi Tiyal lasi laa ilaaha illaa waaye dañ leen gis ñoom ñi ñoom bu ñu ñoom sax ñooñu gën a yiw foofu ñun dañ doon jaay yiw waaye ñoom ñooñu gën a yiw loolu yàlla dogal kon ñoom it fi ñu teg seen tànk foofu la yal na yàlla guddal seen fan bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa li ñu bëgg seen yoon maam Serigne Touba bi yal na ko yàlla defal kawe seen jot képp ku fi ñëw yal yàlla faj sa aajo nañ xol yi sedd na yëg-yëg gi rek ak pas-pas bi ak ñàkk kiñaan gi rek doy na sëkk li nga fi yëgati neex na xol yi sedd na xol yi tooy na te tënk suñuy mboolem cër teewlu kilifa gi nga xam ne ni ngi waaj tàmbali waxtaan wi ndax ku ne xam ne ni guddi gi guddi alxuraan la te sëriñ bi li ma nam waxtaan day laaj ñëpp ne tekk di ko teewlu ngir moom loolu la taamu te noonu la ko bëggee kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu ànd ak teewlu ànd ak dal muy góor ñi muy jigéen ñi ñu nekkul ci biir baas bi buñ nekkee ci biir nañ jege si nga xam ne sëriñ baa ngi waaje waxtaan kon duñ def du dul di kàddu gi jox ko sëriñ bi waaye am na loo xam ne fàtte woon nañ ko muy sëriñ bi guddi gi daa am ñu mu ko darajaale muy ñaari góor yàlla yu bokkoon ci daara ji te suñu boroom dogal moom mi nga xam ne moom moom ñëpp moo sàkk ñépp mooy jël ko soob suñu boroom jël seeni ruur ñu jiitu muy sëriñ Ibrahima Gueye ak sëriñ Moustapha Diouf sëriñ bi di leen fàttali ngir moom du ànd ak nit rek ci àddina képp du ànd ak ku teew rek ñi dem ñi teew ñëpp la yemale kon nañ maase xam ne ñooñu buñ leen fàtte ci xasida yi ak ci zikrullah yi sëriñ Saalihu sunu xol yi weet na kër yi weet كلي وات قلتي جيف بيتات كي بيتلات يا مطول سيد صالح سيد صالح سيد صالح دفل اللي يوم مقل سيد صالح xam ngay tey jii ñëpp a ngi jooy jiriñi ak faqiiri yooy gani eg mag ñaa ngi jooy ku leen di woo dina xamatul Sëriñ Saaliw wéetal nanu moom ji daal jaaxal nanu moom la nu xam te mbono fu ñuy jëlee te xel mu dal Sëriñ Saaliw moom na daa xamal yàlla yonent bi bégal te bi moonu ko defal ku ni wutul ki ci lii amatul sëriñ Saaliw su lu woon duñ fi des alaay kon na den mu des ndax nu moom kal bana fees def ñun ku ni defal dégg lu leen tuuti tey nu way sëriñ Saal sant ku lu leen tuuti tey nu way sëriñ Saal santu war na ko ne sant leen Serigne Sall waaye aw leen ca kaw ko aw ya Sall lanu àndal loxo yi ca kaw Serigne Sall jara àndal jara àndal Serigne Sall lanu àndal àndal Serigne Sall jara àndal Serigne Sall jara àndal àndal Serigne Sall lanu àndal andal bara imadul amin amadul amin bara Serigne bara make jara way barisa murido bara imadul amin bara Serigne bara make jara way barisa yow la nu yaakaar fii yow la nu yaakaar fii yaa jara yaakaar abadan baay sa wax leen borom day fag bàyyi la Cheikh Madi Kan yow sa maama seexal ñi firaw baay sa wax leen borom day fag bàyyi la Cheikh Madi Kan yow sa maama seexal ñi firaw baay sa len Mustafa waala di wal bali bawal ca kaanu góor ak jigéen ñépp yooxi wer jirim yeeg baay yépp wer la tele biir njur pet ba yëkk saalum ñëpp wa dam ku nekk fàtte wa wata yi def ab soq ba mel ni màggal jooyoo bi dal kenn talatu ko mandal bisab keroog naqaru am den ña Sénégal naqaru am keroog mënee su ko misaal boo xalamee demi rasulullaay ak sa bayaag Cheikh Bamba doona laay nga xam na léegi génne Cheikh Bamba fa tey ba ñu bàyyi seex Basiru fa Touba bi sama ko sopp Sëriñ Basiru jóg leen taxaw ñu màggal bàyyi Sëriñ Muntaxa Basiru